waaw parce que chambre criminelle la. voilà waaw léegi moment boobu loolu mooy conditionné ñu ne par contumace la wala bu ñuy demee ba jox parce que bu fekkee ni bu ñuy joxe verdict en fait li ñuy li ñu war a def différence bi. Hmm. mooy jugement bi ak verdict bi. quelqu'un qui est jugé devant la chambre criminelle sans son sans sa présence parce que instant bu xamaguñ lan mooy décision bi. Hmm. dañ naan tu es par contumace. quelqu'un qui est pour un crime en son absence. il est condamné par contumace il devient un contumax mmh. mais quelqu'un qui est pour un délit en son absence il est par défaut dégg nga wax bi condamnation léegi nag léegi nag comme la chambre criminelle mhm. mën na joxe par exemple une peine criminelle comme mën na joxe une pen délictuelle mhm. su fekkee ni daf la condamné pour une peine criminelle tu es un contumax ak les conséquences juridiques yu nga xamante ne moom lay moom lay truc mais bu fekkee ne par exemple bàyyi na crime ba daal di ñëw par exemple ci déli bi condamné la pour le déli da ngay dem si défaut de de de défaut ngay doon xam nga parce que entre il faut entre jugement bi dañuy def différence entre jugement bi. ak condamnation bi voilà. parce que léegi li ñëpp di xalaat li xel yëpp di xalaat daan nañu ko. Mm-hmm. ñu lu mën am appel la. loolu moom ci àtte yëpp la am. est-ce tribunal mooy wax ndax. jeex na da nañu na ko tàmbalee tëddi. Mm. wala boog lu mën a aaju ci procédure bi la may appel ak nangam nangam ba fu muy jëm. non xam nga xam nga xam nga xam nga li li li li li li li compliqué ci mbir bi. Mm-hmm. ah kon am na lu compliqué. am na lu ci compliqué. parce que parce que dafa amoon ordonnance de prise de corps. bu nga xamante ne. dafa amoon wala amul. dafa am dafa am. am na. Mm-hmm. parce que dafa am ordonnance de prise de corps bu nga xamante ne amoon na ordonnance de corps amoon na le doyen des juges. bi muy renvoyer la affaire devant la juridiction de jugement devant la chambre criminelle décision boobu ordonnance de renvoi dafa ànd ak ordonnance de prise de corps parce que dañ ne l' ordonnance de renvoi est précédée d' une ordonnance de prise de corps. maanaam dafa dañ ko waroon a jël. wala dafa waroon a ñëw. balaa donc bi ñu defee ubbi. bi ñu defee ordonnance de prise de corps. Mhm. léegi code de procédure pénale ne au moins la veille. Mhm. au plus tard la veille de son procès Ousmane Sonko dafa amoon obligation dem présenter wu au greffe de la chambre criminelle. dénkaane boppam dénkaane boppam dénkaane boppam pour wane sa ñëw naa. que mm-hmm. jour procès bi dinaa teen dama damay ñëw. mais ordonnance de prise de corps bi kenn mosu ko exécuté buñ ko fekkoon ne exécuté woon nañ ko Ousmane tey les deux les deux ans la day rester prison purgé ko doog a génn mais tey on n'a pas exécuté l'ordonnance de prise de corps. le juge dégguma ko moo tax ma doon laaj sànq ndax am na un mandat d'arrêt bu nga xamante ne juge bi juge bi jox na ko maintenant fi mu toll nii décision de deux ans ferme yi am na su fekkee ne amul mandat d'arrêt bu koy accompagner xam nga il reviendra maintenant au procureur de mhm. faire les diligences qui s'imposent pour que Ousmane Sonko mën a mën a mën a dem purger penam mais juge bi bu fekkoon tey dafa defoon mandat d'arrêt tey tey tey tey tey soo moytu tey tey tey Ousmane Sonko du fanaan këram mhm. waaw maintenant nag reste à savoir ndax décision bi c'est assorti d'un mandat d'arrêt ou de ou mandat de dépôt contre euh, Ndeye Khady Ndiaye bi nga xamante ne présent était présente à l'audience mais pen euh, pen euh, xaalis sànq yaa moomee woon. non mais <laughs> doo ci génne noonu de bokk bokk nga ci